yow sax nañuy dess euh, am actualité judiciaire bo xamanteni yow la concerné directement euh, nga nekkoon procès ak euh, ay agresseurs ñi nga xamanteni dañu ñëwoon doon def ay ñaawteef procès bobu déjà lata ngay ñëw ci procès bi fan la mu njëkk yoy est-ce que mën nga dellusiwaat ci fee yi rek ci tënk. waaw fee yi mu ngi amoon le jeudi 16 mars. Mhm. jamono ji nga xam ne ñun ñëpp sunu xel ak sunu xalaat ak sunu énergie ñu ngi ko concentré woon fii ci Dakar concentré ko ci procès bi nga xamni mo opposé won le président Ousmane Sonko. oui ak euh, le ministre Mame Mbaye Niang. Mhm. jamono ji mi am mo fekk ma ci salle d'audience juste lañ ma xamal ni comme dëkk bi tamit c'était très tendu. Mhm. ci lañ ma wo yëgal ma ne ma ce dëkk ce cœur papa bi nga xamni fofu la laa dëkk sa Grand Bour. oui ay yi ñew nañ attaqué ko. Mhm. fekkon ci buntu kër gi ay nit. ñen ñi ci samay rakk ñenn ñi samay dëkkandoo. kenn ki sax man naa ni waxuma la sama rak sama dekkal mais sama dom la parce que papam bi nga xamni wuy jëna bor suñu borom fan yi si ginnaaw laata muy wuy suñu borom dama dem séti ko mu denk mako d'accord kon koku sama sama dom la. Mhm. muy xalé bu baax di son frère pap Ali Diatara. Mhm. ak euh, Pa yorotal bi nga xamni ñu bokk ben papa ñu fekk leen fa. Mhm. fitnal leen jël kenn ki yu ko ci auto pick up pick bu nervi yi. yi nga xamni ni jigéen ñaale ki mairie mairie maire de Mbour lañ. ak sama frère bi nga xamni dafa daw pour sauver bakenam parce que dafa daw tepp ci kër ñu fekk ko di mu tabaat benen kër pour mëna muccel bopam d'accord ki nga xamni mo ñak ñàkk sens muy papa Ali Diatara bi nga xamni mom lañ dal ci kawam gaaj ko mhm. gaañ metti gañ ko ci bakken bi gañ ko ci bët yarambi, gaañ ko si yaram bi manam li xalé nan dañ ko dañ ko tecc mhm. bam fa jógee ñu wax ma ka ci lañ ko nañ ko yobbu hôpital nañ ko yobbu hôpital ñu sét yaram bi effindi ci gaañ nañ ko mhm. ba ko docteur defal ko certificat médical ba lolu amé tamit dem nañ porte plainte gannaaw ba identifier ñi lañ ko def ñi tamit dañu daw mais ñi nga xamni ñoko jité won jiite woon ba leen identifié kenn ki nekk rak rak si maire de Mbour keneen ki nekk ben mbeur mu siw ya xana nit ñi wax nañ turam. ak lepp ci lañ leen yobbu ñaar ñooñu nak lañ jot traduire arrêter may leen liberté provisoire traduire leen démb nak mo nekkoon audience bi. te euh, plaider nañ ko mais c'est avec le cœur meurtri Pape Matar la la plaidé dossier bob avec le cœur meurtri. pourquoi li tax moy ñi nga xamanteni ñom lañu nañ attrairoon à la barre comme prévenu manam mhm. ñi nga xamni ño defon chongu gi mhm. man dama leena xam d'accord man nani ni dama leena sama kanam nañ yaro gannaaw ñi nga xamni maganté wuñ si âge lu bari mhm. parce que ñox suñu rak ñoo and kenn ki sax daanaka ñoo maasee euh, ñoo suñu kër yi ñoo jakarlo suñu bay doon and demb suñu yaay doon and demb suñu mam doon and barki demb kon buñ ñoo buñ démé ba yoon ñu mëna taxaw à la barre ñu di ko layantoo foofu xam nga ni dinaa si am pincement de cœur. Mhm. beneen bi ma gis ni bu fekkoon nekkul ni mën nañ joteel wala sama njaboot nañ laal. ñu jote woon ak keneen xaj na man maay sol sama mbubu avocat dem défendre leen ñoom pour wax la rek ni ma jegeyantoo. absolument mhm. kon ba loolu amee c'était avec beaucoup de jeunes. laa taxoon à la barre te loolu xamal naa ko tribunal bi. Mhm. wax nañ ni andiwuma leen fii pour je leur veux mal. andiwuma leen fii parce que j'ai une de de dama leen fi indi parce que il faut que ñoom ñu comprendre lan mooy un état de droit lan mooy comprendre lan ñu ko comprendre lan mooy pouvoir police pouvoir gendarmerie ak lan mooy pouvoir mairie ak ñoom en tant que citoyen même bu fekkee dañoo nekk des proches du maire ou de la mairie wala des agents de la mairie. Mhm. fan la seen seen seen doole yam mooy ñu nangu ñu nekk état de droit. Mhm. am ñu jox kaaraange ñu yor askan wi yor kaaraange askan wi yor kaaraange euh, bien wu nit ñi. Mhm. yor kaaraange libre circulation des personnes ay nit ñëw amuñu ben pouvoir de police amuñu ben pouvoir administratif ñu ñëw taxaw di exercer lo xam te état moko mom moom di ko jox ko mu neex mu déléguer ko loolu la ne wone loolu fi am te beneen bi mom moy dafa am lo xam tamit dañu damay demoon ba gis def ko euh, def ko ben ben ben ben coutume manam pratique bu récurrente à chaque fois élection am ñu nekk ci campagne ñom lañuy gis and ak ay nit ay samba boy ñu solo comme solo nervi yor ay gourdin ñi yor ay machette di dal ci kaw nit ñi surtout nak di dal ñi nga xamni ay candidat adverse nañ. d'accord kan man mi di wax ak yow. Hmm. en 2019. oui jité na caravane Sonko président. Hmm. dugg quartier bi nga xamni fofu la laa muy quartier Tefes sa mur sama buntu kër ma jaar fi sama kër mam ñu ni ma lutax ngay jaar fi parce que sama kër mam boobu ak kër mam Cheikh Issa Sall ñoo jakarlo ñu ne damaa ñëw pour c'est comme si Cheikh Issa Sall mom dafa nek candidat te candidat Sonko mo nekkoon candidat. Hmm. lool benn la locale yi passé man maa nekkoon candidat tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi. ànd nak sama caravane dugg encore même quartier bi. ñoom ñu faree foofu Benno Bokk Yaakaar. déggoon nga fi coow loolu. avec sama sœur Sira Ndiaye. député mhm. Sira Ndiaye bi nga xam ni sama sœur la. Mhm. jàppaloo ma ko dara lu bon waaye ay jegeñaaleem ñëw nañ karma fit na juk jug fa. Mhm. ba yaakaar naa ay gaañu gaañu ak ay yàqu-yàqu am fa. bañ fa jugee tamit ci même ci biir élection locale yi gis ngeen li fa amoon euh, ay. Euh, Euh, agent de sécurité bu Cheikh Issa Sall candidat quarante sama caravane mhm. yee na ba kenn sama cadre rapproché yi nga xam ne dañoo ñëwoon pour défendre sama jëm mhm. sama intégrité ak sama kaarange ñu dal ci kawam ba nga xamante ni am na ci ay gaañu gaañu j'ai été euh, obligé d'appeler le les les les services de police et de gendarmerie pour ñu mhm. ñëw artu parce que nekkoon naa si jamono joo xam ne meroon naa jógoon naa nag pour fayu ñom bañ ñëwee artu indi ay auto ak yooyu yëpp canaliser nit ñi ku nekk jaar fi nga wara jaar. Mhm. mais bi gëna a récent. oui notre président Ousmane Sonko. oui dugg na fi jass dugg fi ciki. Mhm. nekk dans la normalité. Mhm. di vaquer ak à ses occupations en tant qu'acteur acteur politique di saafonte ak askan némé ko tour dugg ci biir kër yi di wax ak chef de village imam de quartier yi di wax ak population yi ci biir kër yi dafa ko sax ci mbedd. pour éviter ñu reprocher que ay attroupement. wala euh, euh, participation à une manifestation non autorisée. oui ci biir kër lan nga gis. ay waa APR ay nit ngemb leen ñu taxaw ne Ousmane Sonko bis bu diggee ci kii. dinañ empêcher li mu bëgg a def. fan nañ mujjee ñu provoqué ko ba fitna jug fa ba ay gaañu gaañu am fa ba fi mu mujjee garde corps Ousmane Sonko jàppale ay waa ci kii gis nga li fa jot a yàqu ak ña fa jot a gaañu. ba kañ loolu kañ lay loolu kañ lay jeex. d'accord ba kañ nit ñi comprendre ne. Mhm. mbirum politique. Mhm. mbirum. échange de civilité là. oui ba kañ la comprendre ne mbirum politique affaire de gentleman là. Mhm. ba kañ comprendre en réalité coow li le dernier mot revient à à à au peuple sénégalais. oui à une seule entité c'est le peuple sénégalais. Mhm. ba kañ la ñuy comprendre ne li leen jox pouvoir c'est pour un temps bien déterminé. et un jour viendra ils vont rendre compte. ba kañ la comprendre ne la démocratie c'est l'affaire du peuple. Mhm. par le peuple et pour le peuple. ba kañ la comprendre la démocratie ne doit pas être un mot qui gêne. tant que loolu comprendre luñ ko rek yaakaar naa cycle bi ñu nekk nii dañ ci jóg. loolu nag moom amee taxaw nañ procès. ñëw naa taxaw xamal leen dëgg ji. dëgg ji mooy dëkk bi ñëpp ci bokk yem. ku ci nekk am nga say droit te di nga ko exercer conformément à nos lois et à nos règlements. juge bi tamit ak procureur yi procureur yi ak juge yi rend délivrer un message très fort. wax ni na ku nekk xam fi mu yem. na ku nekk xam luy ses responsabilités nañ wax ni politique tamit. La démocratie ñoo ànd te dañ koy def de la façon la plus civilisée pour donner l'exemple aux générations futures et à ceux qui nous regardent ba ma ci paree li ma leen wax mooy ñii toppalewumal toppalewumal dara le franc symbolique lañ demandé. d'accord ñi ma àndaloon ñi samay ñooñ tañ gaañoo leen dama leen woowee laaj dañu ma même famille lañ. laajuñu leen ñëwuñu fi pour battre monnaie. n'y fi pour ut xaalis pour koparto toppewuñu leen dara. man mii man juge gannaaw ba ma leen baalee maa ngi ñaan yàlla ngeen baal parce que mbuur dafa xat rawatina ñun ñëpp ñu bokk fi ñu soxee koo mettre nañ ko en délibéré pour le 25. d'accord ñoom nangu nañ li def reconnaître seen erreur am nañ matu jéggalu maa ngi ñaan yàlla tribunal jéggal leen. d'accord ñoom la moo nekkoon seen motivation euh, bu ñuy dellu si euh, ci mbir boobu euh, parce que aussi dem di agresser nit dem fekki aussi ay nit ci seen i kër di leen buntu buntoxatal wala sax di exercer benn violence physique si ñoom sûrement war na am motivation wala am commanditaire derrière. mais absolument motivation bi woon leen lu dul. Sénégal toll woon na foo xamante ni les nerfs étaient tendus ñëpp xam nañu ne le procès Ousmane Sonko saa yu ñu ko annoncé rek nit ñi daanaka duñ nekkati ci jàmm. saa yu ñu wax ne Ousmane Sonko war na uyu ji yoon Sénégal yëpp dañuy bëgg a wu ànd ak moom non seulement pour sécuriser la personne de Ousmane Sonko. Oui. sécuriser les leaders de son parti mais li ëpp solo te nit ñi di ko xeebe mbir. te nit ñi des fois duñ ko comprendre mooy sécuriser le projet. de société bi passé bi nga xamni ne jaay na peuple si askanu Sénégal ba askanu Sénégal épousé ko adopté ko ba paré nak taxaw na ñom ñokay ñokay saytu lolu bu mu amé ñep jàppar nañ ni comme man tamit kilifa la ci parti bi te yakarna élection locale yi passé bir Mbour amna na lu mu ñu wan si njàngal loolu li ko fi feddali élection législative yi parce que élection locale yi même suma taxé taxawee ak mat malgré quoi yi amoon ci élection yi malgré sabotage bi amoon ci yenn centre de vote yi ba ñu ñëwee proclamer ay résultats ma ñaawlu li am parce que bu élec yi jaaroon ni mu war a jaar. Mhm. heure bi victoire peut-être xaj na sama poche lay nekk wala suy poche waa yeewi askan wi lay nekk. Mhm. mais damaa ànd ak mat éviter muy basculer ñuy basculer dans la violence éviter ay contestation en a plus finir dama oo sama sama sama adversaire féliciter que ñaanal ko ne que yàlla na yàlla gunge ci yan bi. Mhm. bañ fa jógee dem nañ élection législative yaakaar naa sept mois après mais bu fekkee tendance bi renversé wu na. ba ñoom ñi ma rawee woon ay 4000 voix. élection législative ñëw ci biir commune de Mbour ma rawee leen fa 7000 voix kon xam ni ñom nekkatuñ majoritaire à Mbour. d'accord xam ni léegi maintenant doole ji xam nañ fu mu fété loolu nak bu leen gérer boole les nak jaay doole gi ak baña nang contradiction manam baña exercer la démocratie au niveau local. Mhm. loolu mo andi jiixi jaxa mais lima ci n'a naxari nak oui te gën ma n'a naxari. par Matar il faut mo wax ko. moy mhm. Mbour dafa am 42 quartiers. 42 quartiers 42 quartiers. quartier bi ma Nam quartier bu magla, mais beaucoup de ci quartier yi gagnent moins moyen peuplé kon menace bi là, la nekkoon ci quartier populaire la nekk mhm. mais lan moo tax ñu jéggi 42 quartiers dem ba fi quartier bi Ablaye Tall dëkk maître Tall dëkk porte parole de Pastef dugal fa sept pick-up rempli de nervis ah oui ni armée de gourdin ni armée de machette ñu naan déet ñu wàcc tali bi mais ñii oto yuy circulé bu que c'est pour garantir la paix publique mhm. c'est pour assurer l'ordre mais jarul ñu dugg ci koñ ci tali bi la ñuy parce que libre circulation bi ci tali motax ñuy wax moy les voies de dégagement et tout mm-hmm. mais ñu lool dañoo ñëw sama kër sama ginnaw kër di circuler fofu aux alentours mais ça c'est de la provocation ça ce n'est pas du tout bien en mm-hmm. termes d'image li tubaab bi tuddé le délit d'incivilité manam ngay ñëw pour critel doomu aadama yi ba nit ñi nan li lan la loolu la ñu lañ def mm-hmm. mais yemuñu ci mais dañoo dal ci ay doomu aadama bu fekkee nag dañoo jàpp ni loolu moo ñuy tiital wala loolu mooy tax ñun

yeneen démocratie yi li ñu tuddee les grandes démocraties mais xoolal ngeen ñooy def politique ñi gën a naw ñi gën a ñi ñi jàpp ni ñoo gën a jàng ñi jàpp ni ñoo gën a baax tey jii yow boo demee ba am yenn diplôme am yenn taxawaay yi xam ni yow sa xam-xam jariñ la sa peuple ñoo lay sàkku ñoo lay ñaan pour nga ñëw def politique bokk ci benn mouvance pour bu ëllëg jot séddale ndombay tànk bu jotee ñu jox la si par exemple parce que da war a jariñ réew mi d'accord loolu mooy politique mais xoolal jamono jii ñi koy def ak façon biñ koy defee adversité bi man waxtu ma nekatul adversité dans la normalité mais c'est une animosité animosité dafa am benn bañante bu am ci biir politique te ñun ko indi ñi nga xamni comprendre uñ ne liñ am liñ ñu yor dañu ko denk man fi Sénégal léegi la gis nit ñew di saraxu ba ñu jox la nga utiliser la ña nga ko saraxu ne la momoko nga ne man maa ko te képp ku taxaw ne da koy nanguwaat sama loxo dina la dóor yat man Sénégal gi la ko gis léegi lool nak ba pamatar Pape loolu du jall te ñun il est de notre responsabilité présentement

C'est une am C'est responsabilité. bu boobaa nag responsable bu nous ñun dinañ am réponse bi argument parce que nak, le peu démocratie bi ñu dund. ou wala rafetul pas. Matar am ñu ko c'est vrai tey contre contre rendre un hommage. fexe une pluralité médiatique am fexe pluralité politique parti politique am parti unique nañ 24 ans d'opposition. ak lu mu nak am bilan immatériel bo xamanteni ni nit ñi bari dañ ci dañ cey doute baram mais dang nga koy nangul ne dafa combattre te ba muy combattre peut-être métier dess na ci parce que Ablaye wad ko xamna ne am avocat la mais tal woon métier avocat ndax politique pour sénégalais comprendre il faut ñu comprendre ne Mamadou Dia mais da fay jaar avec tout le sacrifice qu'il a fait pour le peuple sénégalais pour l'état du Sénégal gis nga tay ji fan la mujjé Omar den job da fay jaar Cheikh Anta job tay ji mais ça Afrique bi la vous faites que le Sénégal porte un parce que comme les gens Cheikh bu Russie wala mu France wala États-Unis gis ji dañ exemple qui est imposer yeneen yi. Einstein Emmanuel Kant ak Georges Birdo. mais nous lan lañ gens ci administration mais seen xam-xam moo taxoon seen peuple di leen état di leen c'est vrai di subir loo xam ne ñooñu subir nañ ko Cheikh Anta Diop heure bi waroon na nekk président de la république parce que xam-xamam may na ko ko yërmande may na ko bëgg askanam may na ko ko ak taxawaayam may na ko ko sagesam tamit may na ko ko euh, Mamadou Dia waroon na nekk jiite réew mi xam-xamam may na ko bëgg Sénégal may na ko ko mais lan moo lan moo ko parce que en face dañoo amoon ay politicards ay politiciens yoo xam te nii en réalité boo waxee dëgg rek ñu def la noonu c'est de notre responsabilité. présentement comme dans la postérité. pour essayer de redresser les torts. Mmh. essayer de redresser et faire une république digne de son nom soit restaurée.

demoon nañ ba yegsi nañ ay 500. Mhm. avec tout dernièrement li amone le le 30 mars. Mhm. Hein? ak la ca topp si arrestation mais dugg nañ ci 600 personnes. mais li ma gën a naqar ci mbir moy traitement bi nga xamé amna ci. ban traitement la. Pape Matar Diallo loo mën a comprendre. Mhm. ay nit ñu for leen ci bedd mi. fekkoo seen seen loxo xeer. fekkoo leen ak ay armes. ñen ñi drapeau Sénégal lañ yor. ñen ñi certes sol lañ ti seetu Pastef. ñen ñi solo ñu dara dañu neutre nga ramas leen ñom ñep rafle len nam jour bob opposition bi appelé woon na ay manifestation oui mais ñep xam nañu manifestation mu jël am. Mhm. mais képp ku ñu dajale rek rafle nañ la yobbu nañ la mais bu fekkon sax réglé nañ ko en flagrant délit. Mhm. participation à une manifestation non autorisée. oui à la limite bu ñu leen attee la preuve ñañ ca ñañ ci régler seen dossier yëpp ñu atte leen. Mhm. bi lañ seen kër. d'accord mais lan mo tax nga def une ouverture d'une information judiciaire parce que le 16 mars la bu ba le 2 la won ñi le 2 ñu ci bari bañ leen yóbboo flagrant délit le 16 information judiciaire pour lan parce que faut que nous le 30 duñ ko fekk duñ ko mais lan nga gis information judiciaire coow li ay élèves ay étudiants oui ay professeurs ay mères de famille en classe d'examen Nous trier sur le volet manam ñuy xol kan mo nek élève ñu fekk jëm ko bàyyi bu ñibbi kan mo nek professeur pour éviter que le le le le le monde syndical ne puisse être en ébullition kan mo nek étudiant et en classe d'examen ñu jëm xol nak nañu nañuy légui ba kër gi ñi si des nag kon légui jaaykatu jaaykatu ambulant bi awul dignité pour génn ah ki nga xamante ni day góorgóorlu rek mhm. nekk ouvrier nek journalier te si jour bobu peut-être mu bëggoon a wan à son peuple né bu taxaw gerte dañu wara taxaw ko warut a génn mhm. ñu bëgg a wan ñi jaaykatu gerte caaf bi warut génn mhm. Nous bëgg a le simple père de famille peut-être un chômeur faire entendre sa voix. pour wax a ne liggéey dëkk bi dafa metti que a génn ci bi ñëpp ñu ngi information taxaw di xaar. oui il ci am ay figures emblématiques c'est avec le cœur meurtri que je le dis. Mhm. exemple su ma cité ñëpp oui mais am na ci figures qui xam Matar peut-être ngi a gis am liggéey bu mhm. Lamine Lamine commettre délit dañ ko fekk muy jël taxi di ñibbi. ah oui ñu jël ko yóbbu Lamine Niass lan lan mooy lan moy son seul tort a été de et d'être un citoyen modèle di sensibiliser nek dans la sensibilisation Lamine Niass lan lay def vidéo bu génn lan lay wax dem leen ngeen bindu ci jeunesse bi jël leen seen responsabilité élection mooy mbir mi bàyyi leen di dugg ci diversion yi dem leen ngeen bindu ci sensibilisation c'est vrai war naag péeteem am na yaakaar si Ousmane Sonko am na xel mu dal si Ousmane Sonko wax nañ Ousmane Sonko dafay incarner benn espoir mm-hmm. tey yaakaar boobu mu tas Ousmane Sonko tamit en bon gentleman rendre naka la l'ascenseur